Sonko li nekk teg na ko sama kaw waaye boo ko seetee ba ci biir dafa mel ne ñett la may accusé bi si njëkk mooy daaw ba ren li mu doon wax mooy dama ko complot dama bokk ci complot ñu ko ah, lu mu ne parce que dafa ma bëggoon a jàpp wax naa enquête kat yi leen Ousmane Sonko xam naa ne ku fier la convoqué ko mu ñëwee ngeen jàpp dinaa leen wan ne loolu loolu dara amu ci léegi bu gaaw ñaareel bi ma accusé mooy ne dafa am procès verbal boo xam ne bi ñu koy enquête damaa seet li nga xam ne moo koy setal ma génne ko ci boobu moo gën a ko yomb daa leen léegi nii loolu amul ñetteel bi ma jàpp mooy nee na am na ay photo yoo xam ne dama ko dugal ci dossier bi te bokk ci pour gën koo mën a suruxal boobu tam dinaa leen wane amul suñu paree dinaa bàyyi kàddu ga ñenn fekkee am na yoo xam ne bëgg na ñu ko ñu leeral ko bu fekkee ñoom seen rythme sama rythme ma teg leen pression loolu du kon maa teg pression gendarme bi mais dafa am problème Ousmane su nee maa teg pression gendarme bi pour ñu loolu maa mooy lan la ay couleurs yoo xam ne yu jaune nga ci bu njëkk bi boobu mi ci mu bu fekkee loolu daf koy setal dindi wuñ ko minc xam naa dafa dafa lirul ba rek ma nga ca mu ñëw ci deuxième bi mu ne boobu enqueteur bi daal ni li ko ci jaaxal mooy ay Aïssata Ba mi ñu wax ni moom ñaar ñoo doon maase Ousmane ko dafa jékki-jékki génn bàyyi leen maanaam Adji Sarr mi nga xam ni daf ni dañu koy violer moom moo organisé ba kee génn ni loolu doy na waar man weddiwuma ni doy na waar néewuma doy na waar waxuma ci dara li may wax xam nga mooy lan mooy daf dañ ko génn ci PV bi loolu ay sos la loolu mi ci PV bi ba léegi PV bii maa xam jàll yor ba renvoyé ci Ousmane soo ko soo ko demee di nga ko ca fekk problème bi mooy fii ci deuxième position la ñëw fële mooy ñaari ligne yi mujj détail laa lay jox xanaa soo demee jël PV bi nekk ci dossier bi bi Ousmane Sonko ni boobu mooy bi ñu falsifié daal ni bii mooy bu baax bi li nekk fii ci deuxième point ci ñaareelu argument bi Ousmane Sonko wax loolu moo nekk fee maanaam mooy Adji Sarr wéetal na wéetoo na ak Ousmane Sonko kon ni gis kenn di su fekkee kon loolu lu koy setal la doy na waar wala doy waar man du ma dugg ci yooyu mais dama leen bëgg a xam fekk loolu boo koy seetal kon seet na parce que ma nga fa dañu mu des ñaxeel bi ñaxeel bi ma ci wax du bari parce que yéen sax ba mu koy wax ci télé bi dafa commencé liir xam naa daf ko préparé woon bi muy ñëw mu daal di mooy li mu wax ci Sidi Ahmed Mbaye daal di ci mbiri Sidi Ahmed Mbaye mu ne loolu daf koy seetal loolu su ma sañoon du ma ci wax parce que dama ne man ñëw ma fii pour charger mais soo ci waxul ñu ne ñaar yee mu nekk à l'aise gat wax ci mais bii nekkul ci à l'aise moo tax waxu ci mais boobu comme ci PV Ousmane Sonko la nekk nekkul ci bee xaaral ma liiral leen ko li leen Ousmane Sonko woon ker ni loolu daf koy setal nañ ko liir dafa ne dans sa déclaration monsieur Sid Ahmed Mbaye reconnaît que c'est lui-même qui a demandé à Adji Sarr d'attendre d'avoir des preuves solides pour agir À maintes reprises, il s'est érigé en sentinelle devant l'Institut, attendant que M. Ousmane Sonko morde à l'Amazon. Le mardi 2 février 2021, il est resté à l'écoute. Lorsque Sonko est arrivé, Adissar a tout fait pour se retrouver seul avec lui. Madame Daphne, capitaine bi def nii daf ni Sidi Mouhamed Mbaye nee na bi ko Adji ne Ousmane Sonko maanaam boobu ñuy wax ci affaire Ousmane Sonko dafa ma violé violé nee na mu ne ko da ngay xaar ba am ay preuve yu wóor waaw ki xaaral ba am preuve yu wóor loolu day setal Ousmane Sonko ku ne xaaral ba am ay preuve yi xanaa kon dafa am loo yaakaar ne am na kon Sidi Mouhamed Mbaye setalul dafay wut kee pour mu wut preuve yi mais setalu ko na mu ne ay yoon yoon woon fa pour bëggoon ko jàpp loolu day bu toll nii moom. waxul ni bi nga koy seet dafa dem ci buntu jàkka ji waxul ni bi nga koy seet dafa dem ci buntu école doomam waxul ni bi nga koy seet daf ko seet buntu kër procureur mais daf ne bi nga koy seet moom suite bote la ko doon seet loolu day seetal Ousmane man jàpp naa ne loolu seetalul Ousmane Sonko su ko dugalul seetalul mais comme li ma wax sànq dama jàpp ne waxu enquêteur xalaatu enquêteur seetalul Ousmane Sonko dugalul Ousmane Sonko mais bii xam ngeen ni dugal la gën a jege setal mais mu yokku ci mooy li mujj mu ni bi Ousmane Sonko ñëwee ba dugg Adji Sarr def na lépp ba wéet ak moom loolu si dama mën may wax Ousmane Sonko dafa wéet ni moom ñaar nit ñoo ko doon maase si dama mën may ni ko noonu yéen ñaar wéet ngeen mu ne loolu daf koy setal kon ñaar am na Ousmane àndul ak sa wala liirul lii. parce que dossier bi effectivement lii maa ngi wax bi koy lire très sérieusement lii ak yeneen affaire bëgguma ci parce que j'ai l'impression que ni parfois da xam ne Ousmane mii ça va pas mais noo mën a waxee lii dafay seetal yow koy lii da ko war a denc yéen bu ñu ko génnee wala xëy na donc comme moom daf may complot xëy na dafa bëgg Adji Sarr porte ñu plainte ndax lii Ousmane Sonko lay seetal te newul ci PV kon Adji Sarr wala El Hadj Diouf ñoo war a porté plainte fii mais du Ousmane Sonko parce que fii dañ ne ko yow Ousmane yow miñ ñu Ousmane mu sell mi biñ lay seet suite porté lañ la seet seet wuñ la gànn mosquée de seet wuñ ci benn saw yi lu sax école doom du feneen ay yoon buntu suite la seet mais loolu loolu wax ju ñaaw la mu ne moom loolu daf ko seetal ah mais d'accord très mais loolu bu fekkee am na kuy porté plainte yaakaar naa Adji Sarr moo ci war a porté plainte li yéen lii taxal Ousmane Sonko leen ko génn kon gis ngeen lii de moo fi am ñaari weer lu topp ñu may saaga lu may wax nañu dafa changé dafa changé lu mu changé ñetti affaire message Adji Sarr bi kon naa leen ne mi si mi ngi ci dossier bi Aïssata Ba dafa leen a wéetal mi ngi ci dossier ñetteel bi moom Sidou Mouhamed Mbaye dafa dafa mel ni kuy chargé Ousmane Sonko mais man jàpp naa ni ci waxu gendarme fekkoon wax na ko feneen du am problème mais bu fekkee comme xalaatu capitaine euh, euh, bi def la man jàpp naa ni seetalul wér euh, seetalul waaye aussi chargé wul donc bëgg équitable kon gis nga yi ko soppi ci PV bi dara soppeeku waaye dafa am lu leen waxul léegi bi may commencé lire PV bi rek Ousmane Sonko wax man PV Ousmane Sonko laay wax ba léegi de waxuma bi nekk ci dossier bi fi mu ne benn concernant les déclarations de Adji de la victime maanaam déclaration Adji Sarr bi mu nee dafa am ay contradiction daf ni ci côté Adji Sarr lii moo ci euh, ci déclaration Adji lii moo ci contradiction mooy ñett yi ma leen woon Ousmane Sonko ni woon daf koy setal won naa leen ñaar yi mi ngi ci benn bi daf koy taxal mais yamul foofu waa ji dani ñaar ci côté Ousmane ko nag am na tam ñu xaw a doy waar daal di wax juróom benni affaire juróom-benn affaire yi mu wax ñeent yi moom gis nañ ko fee moom ci PV procès verbal bi nga moom la maa xam jàll yoon maanaam juróom-ñeent yi ñu jàpp ni moom dafa dafa xaw a doy waar ci côté Ousmane Sonko mi ngi fee mais dafa am ñaar yoo xam ne nii ci côté Ousmane Sonko la ko capitaine Touré defoon yooyu nekkul ci PVB dañ na kon kay boo ko amee complot xanaa Ousmane moomu complot fexe ba lii gën parce que ñaar yii ñu dindi te newul fee te nekk ci PV bu Ousmane Sonko yor te liir xam naa daf ko liir mais eh, eh, yaakaar naa du ko mas a liir ci seen kanam ñaar yooyu ñaar yu ñàngal ñaar yu doy waar nañ ko ci waxal fii dañoo wax ne Adji Sarr am na ñett yu doy waar ñu ne Sonko am na juróom benn yu doy waar juróom-benn yi ñaar yi nekkoon ci suuf nga xam ne dafa tàng jër ci sama xalaat waaye dugalu ko nag ndax waxi gendarme loolu loolu dañ na new ci kon moo tax commandant bi bi muy corriger su fekkoon lor Ousmane Sonko moo tax kon lii la ci def lii nii ci suuf na leen ko Ousmane Sonko jox mais comme bi may ñëw leen damay def tout pour expliquer rek mu leer mais nekk foofu di chargé man ñii c'est pas un problème man li ma intéressé woon rek mooy nee na yi koy setal génne nañu ko wan naa leen li koy setal ma nga ko lii nga xam ne gendarme yi ñoom dañoo jàpp ne day dugal Ousmane Sonko mu yaakaar xarta xaritam boobu bindu ko ji muy capitaine Touré wala ki capitaine Touré jox bindu ko xaritam boobu moo ko bindal juróom-benn yii te ko liiree bu baax ba génne ko ci Sénégal soo moytuwul li nga changé xarit waaye yor nga ko liir ko kon ñu ngi maanaam liiral non du ko liir. non bàyyi noonu. xam nga il faut ñu déggoo ci daal. li Ousmane Sonko wax ni man li koy setal dama koo génne man loolu moom fi loolu laay leeral mais li dugal Ousmane Sonko te Ousmane Sonko tudd ko moom tudd baal naa ko bu ma ko tudd. bu leen sonal seen bopp non dama préparé lii de non point de presse dama ko préparé ba yow mu leer na leen du ma ko wax ne ma bu leen sonal seen waaw ah, yàlla leen xam nga Ousmane Sonko dina ko génn leneen la si def photo yi lañ si ñëw photo yi ñetteel bi la bu leen yàkkamti bu leen yàkkamti étape par étape la ñu nekk pour le moment daf nii Serigne Bassirou Gueye dafa falsifié procès verbal bi loolu complot la ni mu ko falsifié mooy dafa am lu ko doon setal ma dindi ko naa leen ni leen wa setal naa sama bopp wan naa leen man du ma setal sama bopp parce que mais wan naa leen loolu amul nee naa leen ñett yi mu wax nii dama ko génne benn bi xam naa dama suivre lu ma benn bi mooy li mu wax ni Adji Sarr message bi ñu ko bind ne ko Ousmane Sonko mi ngi ñëw loolu genre enquêteur bi daf lu doy waar la Ousmane Sonko ne wax dë dëgg yàlla loolu dox may setal ma ne loolu mi ngi fi dañul bu ngeen demee ca PV dañul li wax nii dama ni c'est un haut fonctionnaire moo jàkkaarloo génn ku assermenté maa li leen dañul parce bu ngeen demee bis ba xool ne Adji Sarr fi muy waxee ci SMS bi newu fa te loolu dina mas a leer ndax dossier public la bu boobaa dootuma wax parce que du ngeen mën a seet dama fooy sama man ñaareel bi mooy wéetal bi leen ay sataba wéetal nee na loolu daf koy setal te ma ko génne non mi ngi ci loolu tam agent assermenté na ko mi ngi ci ñetteel bi mu ne Sidi Mouhamed Mbaye daf ko setal ma wan leen ne leen Sidi boobu dama leen koo liiral parce que comme comme Ousmane Sonko liiru ko dama da koo liir ba ci digg mu dagg ko parce que arrangé wu ko ma liiral leen ko ba mu mat ni Ousmane nii Mbaye moom ci Sweet Beauté lay seeta Ousmane Sonko wax naa Adji Sarr na wut ay preuve te bi Ousmane Sonko ñëwee Adji Sarr fexe na ba wéet ak moom may loolu day dugal Ousmane Sonko seetalu ko man leen nag am na lu fi des loo xam ne ne dañ koo wax ni moom luy dugal lu ci ci lu xaw a compliqué la ci domaine Ousmane Sarr euh, Ousmane euh, Ousmane Sonko man waxuma dëgg la waxuma du dëgg mais dama ne moom liiru ko te di ngeen ko lire comme yéen et puis euh, lu bu ngeen jëloon seen seen ba muy def conférence de presse bi ngeen agrandir ko cliquer ci dessous man ngeen koo traité ba mu génn ngeen lire lo loolu yomb na voilà merci. ko. kon loolu mooy ci wàllu modification.